ok di nuyu ñëpp ah c' est important. ma gis nañ daa am lu ñu bokk. waaw ñu bokk ko muy hip hop parce que ndax mouvement ki di mouvement wax mbooloo. waaw day baax parfois aussi ñi ñuy sotante xalaat. waaw du question ñu fi nekk pour jéem a dénigrer kenn wala pour xeex kenn wala pour yàqal kenn mais li nga xam ne dañ si nekkoon dem nekk ay xale ndaw màgg ak moom mu am lu bëri mu def si ñun euh, yàlla def aussi mu may ñu ay xamale. waaw parce que game bi mën naa ne lolu bokku na ci force game bi moy nit yi nga xamantel moy relation bu mu créer entre humain relation humaine bu mu créer lolu amul fayam wah wax deug ba amna gaay yo xamne man legui par rapport game bi dem na ba mel une famille ba mel yene yéen a bokk deret te lolu ci pop rek la la amé non waaw parce que da am lu ngeen beugando don ko defando don ko pratiquando dem ba euh, euh mu bolalen bolé bi nga xamne mën na dafa dépassé na sax parfois bu ko gars japp kon kon lilo am solo la game bi dafa am solo surtout suñu hip hop bi comme ni wax la dernière fois ne professeur ñaa hip hop sen amul hip hop bu ko ëpp solo dans le monde loolu deug la amul hip hop bu ko gëna possible positif dans le monde wa légui nak day bax ñi nga xam ne fi nekkun demb don ko rak difficilement ba tay mom ci ay loxo yu mu nekk day bax aussi ñoñu sen expérience parfois ñukoy partager ak gaay waaw euh, parce que bu ñu defee vidéo yi itam après gars yi ñu koy partagé dina am ñu nga xam ne peut-être ñu mën a seetaan live bi mais dañ koy seetaanaat après seen gaale toog dégluwaat gars yi peut-être nga jëlee fa lu nga xam ne mën na la mën na la yokk euh, la preuve en en que sànq rek léegi léegi léegi rek sànq ay ay 15 heures 16 heures ma nga doon waxtaan ak ndongo di bu daara ji daara ji family ndongo di monsieur Talif MC waxtaan nañ lu yàgg ay ay ay presque trentaine de minutes ci hip bi ak jaar-jaar bi. ah mais loolu en téléphone la woon quoi xam naa du ñàkkoon tamit parce que waxtaan na waxtaan nañ affaire yu am solo yu nga xam ne wax naa ko ne lii expérience bii ngeen am ngeen ko war di partager booy mais nag nit du yoree xam-xam moom moom euh, du du kenn kaay leen ma jox leen ko mais yenn war a xam ne diw am na lii ma dem seeti ko xamuñu exemple euh, sëriñ bu nekk si koñ bi di jàngale yor daaram ah yow yaa jël sa doom yóbbu ko foofu ne ko dama bëgg nga nga tarbiyel ma sama doom bi jàngal ko. mu nek cheikhou cheikhou talimum jangal ko so beugé tarbiya da ngay dem ci cheikhou tarbiya mu mu tarbiya la wala nga dem si seexu tarxiya bi et cetera et cetera ya koy fekki leg experience bi nga xam mom la grand am lu melni ni PBS wax naa lu melni ni daara ji sàng rek nongu lu doon waxtan sang rek c'est trop technique li nga xamne mën na jëriñ bo yu bari bari bari di la moo di ma wax fal le mouvement bi toloon ba nga xamne en Afrique beaucoup dañ doon jang sénégalais nongo nettali na ma benn affaire bu am solo mooy benn groupe bu nekk Nigérian en deux mille euh, en deux mille trois mooy temps yi gars yi génnee album Boomerang bi rek muy muy muy muy carton partout dans le monde mu ne waaye dafa ñëw mooy mu ngi di xam naa Jiji si la tudd dafa ñëw ko dafa bëgg xam nan la waa daara ji def ba dajale sonorité yi sonorité yu ñu def boo xool dafa bëriwoon ay sonorité malienne bëriwoon na si album boobu mooy Boomerang bi ak featuring yi. mu len di laaj ngeen def ba am ba am li quoi gaay di ko expliquer mais wa après <laughs> dafa jang lu beur si wa daara ji il a fallu ko mu dem Angleterre def ay formation sur le monde nga wax def ay formation jangat lu beuri parce que bo xolé musique nigérienne bi ngeen deg ni teubul teub rek toll fi hein ah. ñom dunoo jang si lu beut jang ni sax sénégalais jang nañ sénégalais lu beuri dunoo jang lu beuri sénégalais euh, dem ba jël sen musique jaxase ko musique fela ko xam Fela mooy euh, kooku moom mën nañu wax ne icône la si musique africaine waaw mënoon def yaramu neen bi ak jabaram yu bari yooyu rek ah. ah ñoom ñu jël musique Fela bi di ko mélanger ak li ñuy def ba mu am benn sonorité bu mu joxe ba nga xam ne tey kaana yi sax dañuy dañuy baada si musique musique musique nigérienne bi maa ngi seetaan keroog rek la fois passée Kanye West teg benn son Davido du ko bounce ak fierté imagine loolu mu teg benn son Davido di ko bounce ak fierté. waaw kon moo la wan ne affaire bi dafa laaj dafa laaj xam-xam ñoom pourquoi amoon naa ko fi keroog ma ne leen sénégalais euh, def na am na sa debaa bu ma defoon ba rediffusé ba rediffusé ko si euh, ci rajo bi mooy web rajo bi mef mef rajo bi mooy ba ma invité Ama Diop ak euh, bii bët ba ma leen invité waxtaan nañu lu bëri si wàllum mélange yu ñuy def ma ne man man nu ma gisee mooy ñun dunoo am musique bu universelle muy muy rap. mo ngi partout is everywhere comme nañu wax mo ngi fat mo ngi partout kon euh, hip hop bi wala mana rap bi mo gëna international mbalax bi man mana len ñaat musicien dans le monde wala ñaata rappeur dans le monde ñom ñu am ay disque d'or ay disque platinum ci hip hop ci rap bari na mais génn len ma benn tu mbalax bu génn ben son mbalax bu nek disque d'or amul amul Papa Labo Soose bi fi ñëk am disque d'or ame ko salsa salsalo ko ame e eh, tire kunda lol du mbalax yusu lol mu amone 75 xam ngeen du mbalax kumba gawla sek pata pata bobu bañ nako sa musigu ben sud africain la jël remix ko bam joxe pata pata mu am lu am miriam makeba non non rafna non tudna miriam makeba si mam memoire bon rafna mom la jël remix ko mu jox ko pata pata mu am di sudor on sa ñu dem na ba nek disque platinum waaw léegi nag ñun rappeurs yi ñun lan la ñuy amee lu nga xam ne wala ñun hip hopeurs yi bokk lan la ñuy amee lu nga xam ne dafa lu am doole muy hip hop wala mën a mooy rap music li nga xam ne dafa foo dem monde bi moo ngi fa. ñu am loolu ba pare demande di di seet li nga xam ne loolu fii lay am Sénégal ak Gambie bi woykat mbalaay xoolal fu ñuy cartonné dañuy dem Gambie Sénégal bi ñuy dem di takkar di di bàcc mais gisoo benn mbalax maan buy tëgg. mbalax bu nga xam ne euh, da si ay saal ay tubaab xanaa benn Youssou Ndour te Youssou Ndour seetaan naa benn <laughs> grand bi yéen xamoo Sénégal li ma tax ma ne gars yi xamuñu grand ba léegi grand bi si ay recherche yu métti la nekkoon pour am lu nga xam ne dina mën a dina mën a euh, blanc yi dinañ si mën a gis seen bopp seetaan naa benn documentaire am bi nga xam ne grand bi dafa am benn pied bu mu doon bu mu doon wër benn pied bi nga xam ne da koy teg si pour nga xam ne gars yi bu ñu koy fecc ñu après da ngaa mujj trouvé ba muy wax mu yi ne xool affaire baa ngi nii nii nii tak tak li ko wan ku dem si ku dem si YouTube boo gëstoo si ay documentaire Youssou Ndour peut-être nga am sens euh, seetaan lu may wax noonu grand bi noonu la def fexe na ba am lu nga xam ne au moins bu ko tëggee tey tubaab bi dañ gis boppam mais liggéey la c'est un travail mais ba léegi musul am musul musul am disque d'or si en mbalax léegi ñun nan nañu amee li nga xam ne moom lu cher am lu nga xam ne oor la wala jamaa la ah di ko suub si përëm mbalaax bi dama koy jàppee comme përëm la man loolu mooy sama problème pour man loolu àndul ak intelligence bu dee intelligence ni wax rek àndul ak intelligence taasukat yi booy di copier léegi ban taasukat moo si toj àdduna yemoo Sénégal bi nga yem wala nga dem France si communauté sénégalaise bi nga joué leen gis ngeen temps yi daam daam kii euh, daam seen xaw ma léegi mu ngi États-Unis am na la fay def muur moodu maa ngi ko gis temps mi mi filmé mbedd yi di wax ne gars yi dañoo soxor xool fii nu mu mel rek ah xool états nu mu mel rek nangam nangam léegi moom foo dem doo te booy lu ñuy def nii daam seen moo leen mën fuuf il telement tellement de talent côté côté taasu lu tax mu dem Modou Modou bàyyi taasu kon ngeen war si jàng lan moo gën a bon nag mooy di dëbb ndox dëbb ndox def ay son yi nga xam son TikTok la sénégalais xool ko nii am gars yi léegi loolu nga xewal ay genre son. son yu nga xam ne son gaaruwaale ay man nii laa mel ak yow sama sama am benn son ma gis benn gars génn ko non sama rafetaay bi moo la xaw moo la tere nelaw ak affaire yu ñàkk affaire yooyu loolu la <laughs> gars na léegi dafa xew si jamono parce que Sénégal lam jigéen ñi ñoo am esprit boobu nekk nekk aaw wala nga nekk nga nekk ñaareel il faut nga def ko def ko sinap mbalak sa benn sa benn sa benn kii wala sa benn copine bu nga xam ne ngeen am problème nga jël son bi nga xam day def genre gaaruwaale yooyu nga sinap ko loolu fii la yem fii la yem demul fen fen la demul Mali dama fa dama nga yob fa Mali nga xol Mali bi rek gënul sa Mali Gambie bi la yem Sénégal parce que Sénégal ak Gambie benn instant ben le Sénégal Gambie c'est la même chose kon nak ñun bu ñuy wax li waxuñu ko pour yaq wala pour leen mais dañu gis li nga xamné par expérience bu won si topé do dem fen fen do leen jé ben festival bu mag da ngeen wara a gëstu lu tax à l'époque doon joué si si si festival yu lutax yi daara ji bobu ba léegi daara ji ba léegi di joué si festival yu mag yi maa ngi doon waxtaan léegi noonu euh, festival yu ñu dem di ko joué fi nga xamne fo xamne xam mën na la bu ñu ko wax do xam fal la parce que par euh, par rapport ak nu nu nu monde bu tëddee ay ruq yu nga xamne dañ fa doon dem di jouer ñoom mën naa ne def nañ tour du monde daara ji daara dañ doon dem ay tournée ay ay ay 6 mois néna mo jouer joué festival bu nga xamne fofu du n'importe qui moo fay joué léegi nañ nañ nañ nañ nañ nañ posé la question lan moom may loo daara ji est-ce que taasu la est-ce que mbalax la <laughs> non loolu mayu leen ko de ay recherche yu doy waar moom léegi nag boo leen demul seeti grand yooyu nag ngeen yaakaar grand dañuy toog di leen wax nangam du leen wax dara da leen seetaan parce que léegi dama gis na booy léegi dinoo rëy ñoom pour ñoom xam ne lépp fekk xamuñu dara koo si sax wax di ko jox benn genre conseil sax mu lay jaay na xala man sama waaye man du yaa may. du yaa may kii nangam nag ñoom pour ñoom xam ne li fi xam dara loolu bokk na si luy lu tax affaire yi mënul dem Sénégal mënu foo nekk à l'époque ñëpp africain yëpp ñu xool faañu faañu maa ngi maa ngi fàttaliku benn tur aussi euh, big di mu ngi koy expliqué mais bañ demee jouer def naa Burkina def naa Burkina Faso benn concert ni si benn stade à l'époque euh, big di mu ne dafa toog ni si kaw quoi dafa toog si kaw tribune bi seetaan moom te mu ne nit mooy sur scène mu ne moo moo ngi dégg gars yi di wax ni mu regarde comment ils font comment comment rab ñoom Sénégal da leen yéemoon façon bu doon rabee ak tam parfois tamit olof bu ñuy rabee bi pour man olof bi rek wala wala wala joolaa bi wala séeréer bi wala wala xaalpulaar bi loolu rek empreinte la parce que américain tey bu déggee ngay rab en wolof loolu am na lu muy def si moom def na waaye kii comment comment se moom avec cette langue là mu fexe ba teg si lii mel nii quoi technicité bii loolu dara la. léegi boo si yokkee nag ay sonorité nag ay recherche musicale yi nga xam ne dina tax mu sone leneen loolu day nekkal beneen plus daara ji si loolu lay dox xool leen waa daara ji bu baax si liggéey bu ñuy liggéey day xam na ñi xam nañ fu ñu jëm ay mélange yu dul jeex mais c'est c'est malheureux lu ñuy gis ni jamono ji wax dëgg fa yàlla yi jëmul hip hop fenn yaa jëmul fenn te boo ko waxee nag gars yi mere la ne jàpp ne non boo yaa ngi fesal fii Sénégal te xam ngeen ne Fesal Sall ñun xam nañ nu muy demee Sénégal fii ni Fesal Sall ñun ñëpp mën nañ ko da ngay dem seeti benn maire maire bi jënd ay mille tickets séddale ko waa koñ ba naa fi benn jour Sorano damaa ba tas benn groupe di joué <laughs> ne benn rappeur bu waroon joué foofu mais waa koñ waa koñam la dajale ay xale yu nga xam ne ay sept ans huit ans xale yu nga xam ne la wër na ñii nii non buubu waa koñ ba rek dugal leen si benn benn bus pour ñëw Fesal Sorano pour ñëw boo ñëw ñu ne ah Fesal naa Sorano eh, eh, def naa salle pleine ndax sa bopp xam na nu ñuy feesale salle fii yow Sénégal loolu nag du du tax nga ne man li may def dafa baax parce que ma ngi feesal salle non non affaire bi compétition bi moo ngi nekk en à l'extérieur la compétition du fii de mais fële la est-ce que yaa ngi si festival mag yi ah est-ce que yow fu ñuy gis artistes yi mag yi ñoo ngi fay gis yan featuring nga def ak artistes yi et cetera et waaw loolu la quoi parce que instant yii moom foog ñu waxtaan ak suñu mbokk yi c'est important parce que. Euh, nit li ñuy wax rek looy def dara dem ba benn instant xamatoo fu jëm te dama gis ne gars yi xamatuñ fuñ jëm waaw gars yi xamatuñ fuñ fekk li nga xam ne dafa stagné <laughs> mbalax bi nga xam ne surtout taasu bi nga xam ne dafa stagné nga nam di si langaamu tey ay ñoom bas ay ay ay ñoom xaw ma nan euh, xaw ma bas nan bas cu xaw ma bas cuun la moom la moom la gars yi léegi di xëccoo di def ay <laughs> c'est n'importe quoi mën naa d'accord sax man yàgg naa wax loolu na fàttali ko bu baax Eh, wax naa ko RFM yàgg na dama ne mën nga def sa benn son hip hop bu taay une son hip hop bu taay nga invité si benn benn taasukat mu defal la say flavor loolu beneen affaire la parce que man dama gis ne ñun waruñu am euh, waruñu am complexe boobu tey mën naa def benn son bu nga xam ne damay damay cote si taasukat bi ma def benn son hip def ay mélange mën naa def ay mélange yu nga xam ne dina dina sant benn kii mbalax wala benn kii bu nga xam nga xam ne lii nii benn canal mbalax la mais ça reste hip hop mu invité kon artiste mo xam mëna nek nekk mëna nek na nekk jazzman mën na nekk mbalaxman mën na nekk taasukat c'est possible mais man la laa mun comprendre mais yow nga fekk gaay sen musique te sa album la nga fekk len seni seni délire ba paré lu gëna a sa nga garder sa drap mais rawato de da nga fekk way ci affaire am si kiyam ci mun mënam wala ci ci univers nga ko fekk ku muy tasso ngay taasoo ba moom. <laughs> loolu daal lu ñu luñu luñu war di waxtane la ci télévision yi ci radio yi ci CD parce que yalla xamna na ne li ñuy gis ni mom wax deug fa yalla ah découragé noonu gaay yu bari man da gaay may wo partout na gaay man essayer ni sérieusement xamatuuma lan la xamatuma lan lay déglu nii quoi <laughs> parce que do xamati kan moy rappeur rappeur da nga doon gis mu njaab rek nga xam ki das hip hop attitude hip hop lay doxé muy wax ngeen te ko télé mi expliquer nga xam ki ni waaw. hip hop may wax ay temps bon invité benn waa gëbla gars yi toog di expliquer ngay xam ne ñii c'est hip hop nga invité boo invité waa underground PA ah, wala nga invité KT nga Rapodio wala nga invité waa Post Black Soul bu déggi toogee nga xam ne ni hip hop moo <laughs> ah, wala daara ji ah, mais léegi da invité benn rapport mu mel ni benn taasukat nga invité colin bi sax colin bi moo njëkk a moo njëkk mbalaxe li nga xamné instant yi mom ci la hip hop sa nek waaw parce que gars ñoo ngi def le tout pour fexe affaire ñu jaay ko comme luñu wax euh mais jaay ko bi nak dem na benn instant noo xamatu ñu man pour man xamatu fu ñu jëm waaw ah, nit ki bu demee ba nga xamné yow lu ngay def mënatoo toku sax décrire bañ na sax am ñoo xam bo leen invité nga laaj leen ne lu ngay def lan la sax <laughs> wala musique bo dee ban genre musique la sax mënu ko mënu la ko expliquer. moo tax euh, boo leen boo leen xoolee bu baax euh, hip hop kenn tënkul kenn am nga droit créé am nga droit indi flavor bu bees mais tool ko tuur gis ngeen euh, ku mel ni guru gift yu ni mel ni rhymes universal RAP mu ne comme gangster guru bu mu ñëwee am benn ay projet na war na mat ay quatre xoma cinq projet mais jazz matage doon def mélange entre jazz hip hop mais ñëw le taxaw na man non damay ñëw def hip hop nangam nangam mais dafa ñëw la tuddee ko jazz ma taas ñu xam ne lii ay projet la yu xam ne ay mélange yu mu indi la moo tax ma ne booy lu ñuy def nii dañ ko utal tuur yaa yàgg naa ko wax dépp àlla yàgg naa ko wax li ngeen def nii utal nañ ko tuur soit ngeen tuddee ko rab mbalax wala rambax maa ngi ko dégg ñu wala leneen mais moom mënoo leen taxaw na lii rab parce que benn amul attitude rappeur bi sax day deñ euh, ñëpp xam nañ rappeur muy tege attitude bi nga xam moom rappeur am buy rap day feeñ si buy rap taasukat ñun xam neen Pape Niakhou taaxil taas muy def xam nañ ñu muy def xam nañ ko bu baax a baax xam nañ ñu salaam jàllu taas ñun xam nañ fas ñu ay Sénégal lañ ci leen dëkk rappeur bu fi def comme ñoom dañuy xam ne <laughs> loolu mooy problème bi moo tax ma ne kenn terewu leen ngeen taasu ma ne terewu ma ko kenn te mënu ma ko tere kenn tamit parce que yéen a moom bopp mais li ngeen def il faut ngeen nangu ne lii fonga nga nangu ko tu rap attitude bi fentu si musicalement tamit du du hip hop amul fenn foo meuna taxaw ni hip hop parce que lu li ngeen def ni ak amul ben différence ak ni def ni def sans ñu ñu def euh, tasu kon motax encore une fois utul len ko tour utul len ko tour ngir yalla ngeen tuddé ko soit rap mbalax bu len né nga tuddé ko rap mbalax ah am ngeen droit bi wala rambax ma ngi dig rambax lu ngi rambax ken du len def dara ñi ya, nga xam yeen créé ngeen seen flay bop yeen ak seen beat maker li ngeen tek jeena gis nga ay ñam jéesi ba ñu esprit def eh, jël musique mélanger dafa am ñu taxawé ñu taxaw du ko nga ñuy défendre da lay bëgg expliquer du no bëggoon am ay yeen sonorité ñu doon gis mélanger ko hip hop bi mu joxé li bañ demee ay temps boo nu seetloo ba américain dama nañ ba songu euh, euh, indien yi mais da ngay xam ne noonu jël musique indien yi di ko mélanger hip hop bi moom ñu doon joxe ku mel ni timbaleen daana ko def mais nga xam ne mélange la mais ñun def tuñ mélanger ñun dañoo tuxu du mélange de mais tuxu la waaw mais lii kenn mënu ko tuddee mélange parce que yow mënoo taxaw ne da ngay te yow li nga ëpp doole fuuf yow baasu wala ma ne quintessence hip hop kon loolu no ko mën a tuddee hip hop du sa préféré sax nga ne mbalax mbalax rap <laughs> wala nga ne rap mbalax mais daal euh, sérieusement dañ na ba lu gën a lu gën a garaaw ñi nga xam ne sax dunduñu hip hop ñoom sax xam nañ seen bopp waaye ñun ah xale yi léegi dañuy <laughs> ne kon <laughs> xale yi léegi dañuy taasu te man li mu si gën a métti rek mooy o a perdu. du de man ndax li am ni instant ko wax mu ne la ah man de rab bi léegi xamul ñu ah man da léegi rabbi bi na nga sangam message bi legi ñu ko doon am amatuñ ko musicalement tam li doon tax gaay di dem di nyom di dem ay concert nyom ko legi nak boy wax ñu ne ñi soxor ñi ñi xam rek ñom ñom pour ñom ñom ñom mom game bi wala ñi ñom pour ñom hip hop diine la non non du diine du dara ñun ñu dara yéen a fi fekk musique yëpp comme ni wax dara yéen a fekk lépp fekk fi reggae fekk fi salsa fekk fi bala ngeen da ngeen di def rap seen waa gàlle sax lu ñuy wax ah diw da rappeur sama doom da rappeur la balaa nga doon xam ñii di def mbalax yëpp ñii di def rap euh, rap taasu bi yëpp koo si doon këram nga laaj yaayam ki la la ki rappeur la ah, kon kay jeex na ba ngeen waxee seen ay rappeur ngeen def leen rap am ngeen droit nag jaxase boobu lu leen neex mais nañ sentir ne lii au moins base bi wala noyau bi hip hop la wala rap la. mais sérieusement li ñuy gis ni jëmul jëmul kanam benn eh, da ngeen ñàkk public yi leen toppoon ñaar doon leen dem fenn fii ngeen yem senegal Gambie senegal Gambie Mali bi doo fa toj doo toj Guinée doo toj Burkina Faso yéen ki da war laaj ni nan la waa PBS defoon ba Afrique ñu doon tourné fépp ak Europe ak États-Unis PBS yam ñoon senegal de ñu doon tourné Sénégal dem ay Burkina Faso Abidjan Eh, dem Guinée Conakry dem Guinée Bissau fépp la gaa doon dem grand yi fépp lañ doon dem waaw yéen nag à part Sénégal bi ak Gambie ak Mauritanie te Mauritanie xam nga nu mu fa tëggee nu mu fa tëddee Mauritanie dafa am benn Sénégalais benn benn Mauritanien bu mu nekk foofu bu nga xam ne day liggéey waa agriculture du ban <laughs> kooku moo fay jaar parce que yéen booñ dem si mais du question du ngeen bénéficier lu extraordinaire ba ba naaree na non ñun tey dañoo soxla tey tel tel booy non non amul kon moo tax. il faut que ñu xoolaat suñu bopp gis ngeen nii nigériens yi def dem def ay formation musique def ay recherche yu mag gis seen benn icône bu mel ni Fela xool nu ñu mélanger ay bagages am ba am lu mu joxe tey ba nga xam ne ñoo ngi toj àdduna nu français yi demoon ba jël seen musique Mozart bi jaxase ko seen musique boo xoolee musique euh, rap français moom boo xoolee dafa amoon benn benn touche particulière ah da nga ne lii euh, euh, rap la amoon na ko au début. rap sénégalais foo ko déggoon nga xam ne rap sénégalais mais après dem na ba loolu yëpp dañ ko dindi sànni moo tax wax naa benn si ba ma invité malal ma ne est ce xam nga ne instant am benn cassure cassure moom si pop gars dafa am ñëw na ñëw rek gars da ngeen liggéey bu fenn rek gars dagg affaire taj na lu ngeen defam dara baaxu daa mel ni bi dafa recommencer wu à loolu moo si métti gars yi liggéey lu rëy am fi li nga xam ne ay mbalax man sa am ñu mooy am major major ku dem ba Island Record di la signé sam waay <laughs> loolu caaxaan Island Record jamono jooju boo na ay jamono quatre vingt quinze dix-sept jamono jooju jamono quatre vingt dix bi temps yooyu jamonoy Mazor la ay Columbia ay Island Record ay Universal dañoo amoon doole am puissance xam ne bu la produire da ngay tas si moom parce que amoon na ay canaux yu la xam ba leen vidéo day daw partout parce que ñoom puissance bi ñu la PBS amoon na loolu boo xoolee mbalax maan yi fi amoon masoro leen compté de Youssou Ndour mu fi amoon masoro su ma juumul Baaba Maal ak Ismaël Lo su ma juumul ñoom trois ñu fi amoon masoro jamono jooju UBS ñëw am maso waaw léegi nga war a xool UBS suñu jaar ba maso est-ce que dunoo ñëw rek rap comme nu américains yi rabee wala dunoo ñëw def comme euh, def rap mbalax wala lu ñu def boo doon seetaan UBS euh, au temps bu ñu doon joué da ngay gis Kora sur scène da ngay gis Borom Tama sur scène da ngay gis Jémbi sur scène mais boo xoolee base bi rap la de. dañuy dañuy dañuy teg dañuy da def de sorte que mais dañuy xam ne lii nii ay sonorité africain la mooy tamabe euh, euh, kora bi ak euh, ak jembe bi da xam ne li ay ay instrument africain la mais base bi nga xam ne hip hop la waaw di saf ñaa doon ñëw di jam gaa ay bit ah gaa sonorité yooyu mu leneen. gars yi même nu ñu doon solo sax dañu doon joué solo nu xam ne façon boo xam day façon bu différente par rapport ak gars yi pour rek seen touche que musique chaque pays dafa war a dafa chaque pays wala chaque continent dafa war a dafa war quelque chose ñun waruñu ñëw defee rab bi comme ni ko américain yi defee comme du am sens ko daax fuuf parce que ñoom noonu dañ ko nàmp te loolu yëpp seen yëf la mënuñu rabee tey comme nu français yi rabee mais il ñu rabee en tant que sénégalais jël bagage xool nañu ko si jaaxase ba am lu mu joxe mais nag loolu ñun saa ñu def loolu mais ñun dunoo ñëw dunoo mélanger ba mujj tarxiis tarxiis di dem waaw tarxiis di dem nag sam problème loolu la ba dem sax yow lu nga yaakaar ne yaakaar ne tiktok yi moom moo leen di jaayal lu ngeen nax seen bopp tiktok yi sama waay fii la yem fii koy jël di ko di ko di ko gaaruwaalante loolu rek seen son yo ngeen def dañ koy jël diko ko sinap di gaaruwaale seen morom jigéen rek kese yow nga yaakaar yaaree gaynde mi nag am naa ay vues am fekk lu du tus ñun dunoo buñ sañoon tey fii ku bees yóbboon affaire fu ko daara ji yóbboon fu ko ñoom eh, eh, ay bidéo bees yóbboon fu ko ñoom ay ñam jant bi yóbboon fi ko ñoom biyam ji yóbboon ay ràqu bi ko yóbboon yéen ngeen yóbbu ko fu ko raw te yéen am am ngeen possibilité possibilité boobu tey booy lu ngeen am grand bu ñu ko amoon toj àdduna ngeen am nii tey tey booy boo dem gàllam am xom studio grand à l'époque studio dafa nekkoon lu jafe lu jafe ñu si amoon studio ah man day ku ma sa xamoon ku am studio jamono jooju te moko mom muy tonto mak <laughs> tonto ba dalu mu fa am si rappeur wir xam di enregistré gars yi mais yenen gaay dañ dem di fay ci war nga dem nga dem xippi Youssou Ndour joolooli wala si war nga dem si El ndjay wala nga dem ci ñom ay ñom Wings et cetera et cetera kon nga xamne ne li ngeen am tay ak tam par rapport ngeen gi ñu am ay ay ay ay YouTube am Facebook TikTok et cetera et cetera. mais loolu waroon na mën a tax sama waaye ngeen def li nga xam ne mën na toj àdduna lu ngeen am grand amuñu ko mais pour man nag moo tax fa grand yemoon yéen dañ ko doon dépassé te ba léegi nii daara ji bi nekk bi nga xam si grand yi la bokk ba léegi fu mu mën dem yéen mënuñu booy mënuñu fa dem ñu posé la question pourquoi lu tax daara ji fu mu mën a dem jamono ji di fa tourner pourquoi nouvelle génération kenn demu fa léegi tam ñu ne la non may lañu temps temps temps bi kay jàll kon gis nga bu leen rëy dem leen ngeen seeti grand yi wala soit ngeen créer ay rencontre yi nga xam ne ngeen toog ak grand ngeen waxtaan si musique waxtaan ci musique techniquement parce que ñi gënoo dem xam xam lan la gaay soxla lan la ngeew bi soxla wala lan la étranger bi soxla ñun su ñun grand yi du gaay du ko def il faut gaay def loolu bu ñu ko defal luñ dem fenn bu ñu rëyee gisee bu ñu rëyee booy te man loolu moom gën a métti nouvelle génération mooy booy dunoo rëy booy faale wuñu kenn booy dunoo bew booy duñu laaj kenn am na nañuy laaj mais ñu si bëri dunoo rëy koo sécurité mu merale def la noonu mën nga ñëw taxaw benn rapport du ko défendre partout mais nga ñëw benn jour critique woo rek mu jàpp ne wuu kii daf maa bañ te pourtant bañu la dafa nekk critique bu objective parce que ñun ñun amuñu benn yéene pour yàqal kenn amuñu benn yéene pour wax lu nga xam ne day yàqal benn rapport bu ñu sañoon tey wax dëgg fa yàlla ñu dégg booy yu bees leen dégg partout dans le monde si festival yi mag yi si seeni mag yi nga dégg sax ni def ay featuring ay ay ay ay ay Jay-Z def ay featuring ak ay ay Booba et cetera et cetera mais fii lañ yem fii lañ yem ba pare boole ci ñàkk nekk benn ñoom seen biir tey am na booy yu bëri tey bu ñu defoon ay featuring seen biir rek dina mayaat doole game lu bari mais ñoom seen biir sax jubóowuñ parce que dañuy dawante sont très mystique mystique bi dafa bari ci game il faut gars le gëm yalla gëm mystique bi ne seul le travail paye Sénégal y a tellement d'exemples musique yi nga Vous ne suivre duñu duñu duñu duñu au début na gars dem grand xam bari na fu jaar bari na def ba bari na mais loolu bo nan xamé dama koy xamee boo toogee waa PBS waa Daara ji yeneen yeneen grand yëpp lu ñu xam bari na mais boo leen toogee seen gaal yaakaar na xam ngeen leen kan moo leen koy wax kenn du leen ko wax sama genre peut-être dem root su root si ñoom am lu mu si jox tuuti rek mais dëgg dëgg mbir mi ku ko bëgg a xam da ngay dem seeti grand yi tamit soit ngeen organisé wala soit wax naa ko sànq tey suba waxtaan naa maa prendra lu bëri téléphone tey suba te sànq bëggoon naa ko jël sax mais moom tam dafa xaw a jàpp xaw soj bi soj bi temps daa bëri si bi mais waxtaan nañ tey mat naa lu bari téléphone mag moom Kendra par rapport ak fu mu jaar ak yenn gars yi et am na expérience bu bari bu mu xam moom Pendra si wàllum organisation yu bari mais ñooñu boo waxtaan ñoom noo koy xamee noo koy xamee soo demul soo su la jaraloo nga dem seeti leen waxtaan ñoom foo koy xamee dañuy xool économie mel ni ay dégg ah ñu mel ni ay xumaan. yu mel ne awadi et cetera du jeex jojo yat fu bopp lu su nek kayit mastermind bari na duñ jeex mais bo duñ dem parce que léegi ñoom ñu sonal yenn boy ndeysaan xam nga dañuy wax ne am ben wayus ndur wax ne ba do la xamu njoowaan dañ koy njoow mi njoowaan ñu bari liñ nek ni dafa mel daf leen jom te dara khalis auto keur du daara nit moo gën a yéeme lu yéeme nit nit da nit nit moo gën a yéeme lu yéeme mun moo tax man dara mënu ma yéem si àdduna ni xaalis ak yi kër ak yooyu man nit moo ma yéem kon nit mooy richesse pourquoi pas gars mën di waxtaan nit ñi tey booy bëri bu ñu am yenn yi rek changé na numéro téléphone dañuy dagg relation amoon ak gars dañ koy dagg même animateur sax pour nga jot leen sax surtout na problème man sax mbokk animateur a bëri yoo xam ne man damay bëgg invité benn booy mais amatuma numéro amatuma numéro booy dagg nañ dagg nañ kii boobu that's crazy pourquoi loolu parce que léegi fii laa toll quoi wax ak benn meuf wartuma dem benn émission Lamé Sène wartuma dem benn émission waaye di et cetera et cetera wala wartuma dem benn émission euh, euh, Dof Diop su ma woowee mooy loolu pour lan te démb ba nga nekk dans le grand yaa nga doon sonal gars yi di ko woo di ko wax nag dama bëgg sama sama single bi nangam nangam looy def wax ko. moo tax sama il faut ngeen delloo seen xel foo ngeen delloo seen xel gis ngeen am na ñu leen gën a nekk star fuuf jaar nañ gis nga ku mel ni dëgg moom boo yi di cëpp cëpp yëpp kenn du si musa mel ni moom dëgg lu mu amoon si hip hop gaal seen si wàllu ñu tuddee star ki nga xam ne même mbalax maa ne dañoo amoon complexe maa ngi fàttali am na benn jour <laughs> Ambal Gomis invité waa PBS ak waa Flash si système Massaane mais boo xoolee waa Massaane mi muy xoolee dégg <laughs> ne comme ku du ko gis maa ngi fàttali nii nii pour wan la la bu dee wàllum star kenn toll fi nii dégg dégg nga même mbokk rapport bi sax dañ ko faamoon bokk <laughs> lu gën a yéeme parce que kooku c'est un superstar loon superstar concert gaa yi ñëw xool dégg tey fan lay fële lay sol yan daal lay yéegal tey eh, booy booy booy benn sa booy mënuñu solo sax malheureusement booy <laughs> booy seen solo yi seen solo yi day cere booy bëri mënuñu yéegal dañuy sol day xumb nii rek bëri couleur lambar lambar yi ñoom pour ñoom yoree gën te xam nañu mënuñu solo mënuñu solo kon na ngeen def ndànk wàcc wàcc waa seen bopp ñun ken bañu leen te leen bëgg parce que suñuy petit frère ngeen ñeen sax mën naa wax ne sax suñuy doom lañ waaw suñuy doom lañ ñeen ñi <laughs> Isa Baye maa ngi lay ziar baar wey Isa Baye ah moom am na ñoo xam si booy bu ne jur ah ñun bu ñu teeloon marié mën nañu benn boy bu toll nii si comme boy grave léegi mais peut être yi xam tax rek ah mais pour dire il faut il faut ngeen ñëwaat su teer xam ne demagu leen fenn demagu leen fenn waaw xam nga nag euh, nit war na góorgóor bi nga xam ne moom dara war ko mën a joom mais daa mel ni yenn yi moom day mel ne wéccet yi nga jot ko mu commencé am am ay un million kii nangam nang da lay mel nekk lu nga xam ne da laa joom mooy jomb la gis nga nit milliards joomul nit. milliard sa doomu nit moo gën a force lu yàlla sàkk yàlla dafa jël lépp jox na man maa jël nit daf ko xalif suuf amul dara lu jomb nit tey man waroon dara jomb ma tey ma am sama benn euh, jet privé wàcc jël ko dem yi loolu day dara jet privé ay weñ la rek ay weñ ay roue ay moteur la ay essence nga siy def sa dara dara oto bu ngay dugg nit dawal lan mos nga ay weñ la ay pneu rek doo ko lekk doo ko naan da si kër wàcc benn moyen la da nga war a xam ne yow mi si dugg yow yaay chef yow mi yow la yàlla terelee loolu quoi yàlla dala terelee ay oto ay avion ay kër kon yow yaay yow yaay naanaan <laughs> yow yow yow mi nit yow la yàlla defal lu nga xam ne dafa rëy man daal dafa xale ba ko suuf nga représenté fi dogal waaw di bëgg lii def lii bëgg lii def kon alal warul mën tax yenn yi wala yenn wéccé di tax muy démé ni muy démé ni instant sama mbokk animateur dañuy kaas lu bari mo tax ma leen kaasal ni ko si wor si boy amo sa changé leen numéro téléphone légui ñom il préfère wax ak animateur mbalax maa ko ñom xessa yi nga xam ñoo xew légui ci walu mbalax bi daleen di inviter matinal bu ñëw matinal ñëw sol sen solo yi couleur yu bari yooyu ñëw taxaw mac ni ré mais tey bu leen ben dof job bu nek wala faji infom sax day xawam problème pour jël boy té nak boy animateur war ñu leen gëna war ñu leen gëna a gore démb avant xasaade leen xam wala benn benn abaade leen xam ah do xamoon ngeen dof job bu baax de xamoon ngeen lamay seen bu baax xamoon ngeen waay di bu baax baax a xamoon ngeen mef usu bu baax a baax pourquoi tey mu demee ni ngeen mel ni ñooñu ñooñu existe existe loolu mooy manque de reconnaissance loolu mooy ñàkk kóllëre te chaque jour ngeen bind seen texte yi non nit dafa am kóllëre bi nay texte moo tax il faut ñu waxante dëgg il ñuy waxante dëgg waaw defuñu ko pour xas kenn mais parfois day baax ñu waxante dëgg suñu biir parce que musique bi musique gu musique gu dëgg la ñuy wax musique ñoo nekk benn musique au monde bi nga xam ne def autocritique suñu biir ñun hip hop ko am amul beneen musique bu ko am mbalaxmaan tey benn bu wàllu si taxawoon tey di critiquer tey di critiquer euh, beneen mbalaxmaan comme moom dañuy xaar dañuy xeex de waaw wala ñu saagante léegi mais rap am nga droit sa bind benn texte classe sa morom rectifié parce que classe classe correction la waaw dafa am classe bi nga xam ne correction la. ñun lu ñuy def ni nag pour ñun waxtaan ak suñuy xa suñuy rakk la pour ñu ñëwaat isa maa ngi lay ziar nee na euh, non man de des fois américains yi dañu may wax ma tegal vraie musique sénégalais mais ay yu rek laay teg gis nga yaa États-Unis la nekk américain dañ koy laaj pour mu tegal leen musique musique sénégalaise mais moom ay Youssou Ndour la leen jam gàcce la parce que moom am na am na am wala. ruus na jël di leen tegal benn son rap sénégalais li muy gis ni tey ah lii gàcce la yaa ngi nekk aux États-Unis américain la laaj ne man doo tegal musique sénégalaise mu man ay son yu suñu réel jàmm parce que ruus na leen tegal euh, euh, rap rap bi ñuy gis fii xuu meeke maa ngi lay ziar ma musique dafa xaraam waaw wax ma ban texte ban texte la yàlla wax musique dafa xaraam benn xadis wala benn am na yoo xam boo si duggee da ngay de xaw ok maa ngi lay ziar xam naa day mbarak eh, flamboy for life maa ngi lay ziar waaw loolu la quoi tout cas daal euh, na gaa yi gën a góorgóorlu quoi na gaa yi gën a xam ne euh, hip hop bi dafa am fu mu jógee am lu rëy lu mu def am lu rëy lu mu représenté Sénégal à daara ji moom te flamme bi di turoon tey da doon rafetee daara ji tey yenn tournée yi muy def à l'extérieur dajeeg dajeeg yenn booy foofu si yenn festival yi da loolu loolu da def plaisir daara ji ñëw bokk ak benn benn booy su nouvelle génération bokk ak ñoom benn benn festival bu ñu day xam ne au moins man li ma nekk nii tey teg naa loxo yu tey maa ngi dem dafay bokk ak booy ay ay ay festival mais amatul amul ah léegi dañu posé la question lan moo waral loolu lan moo waral. lan mo waral affaire yi yam fi ba legi buñ ñu wax nak ay dem naa France France ñun xamna ñum démé mu dem ben sal je fa benn communauté sénégalaise nga fay jouer ay sénégalais da ngay jouer du ben promoteur français mom mo lay wo pour jël la pour nga jouer ko ben affaire amul kon buñu nax suñu bop buñu nax suñu bop ñu wacciat xamné ya beaucoup de choses à faire ñu wara def ba bari

nit dof day rab kon ba legui euh isa limi wax ko li limi wax xam ko peut-être mom bo deg mi wax moy par rapport ak euh lëmbal bu saf yi nek fi jamono ji lëmbal bu saf bi motax mi wax yi nga xam boko tegal yeen jigen yéen ta lolu motax ma waxula la euh, rab sénégalais parce que am na ñoo xam ñoo ngi def ils le font bien am na ñoo xam ñoom ñu ngi def nice mais sérieusement euh yéme na lool yéme na lool hip hop Galsen bu demee bu tollu fi tay tay nigérien rop nañ ñu dem gane ropp nañu dem Afrique du Sud ropp dañu dem Mali bi sax amna na sax ñu ne ropp nañu ak Guinée Guinée ko nak légui moo waral lool lan waral lool kon gars dafa am liggéey bu liggéey ñu tek ci loxo param loxo yoy jël ko bay ko mu wad mais ba légui c'est pas encore trop tard waaw bob euh bu Sénégal jël ba nek au-dessus de tout le monde fi en Afrique ba nga xam africain ñu jang suñu comme lu man sang nongu doon wax sang naa du ñàkk un jour jël ko mu gën a yaatal si parce que Ndongo a beaucoup de choses à dire waaw waxtaan nañ sànq waxtaan bu da ngay xam ne grand yi grand yi ñu jar a respecté nañ ñu jar a respecté parce que ñoo liggéey liggéey bu nga xam ne moom sama waay ay temps mbalax man dañ doon dajeeg ñoom si ay festival ñoom Youssou Ndour dañ doon dajeeg ay non ay ay waa ay waa daara ji ay bàmmal dañ doon dajeeg waa daara ji wala PBS ay festival yu mag moo tax grand yi respecté leen ah gis nga Youssou ak ñoo respecté ay awadi yeeg ay ay ji ak ñoo leen respecté ku leen gisee da leen jox cër parce que dañu xam ne ñii c'est des musiciens yi nga xam ne confirmé ah loolu nag sama waay il est temps que tamit booy góorgóorlu ci loolu et Abdoul Sall maa ngi ziar nee na ma doon lesson ah yow eh, doo déglu booy yi ah doo déglu taasu ah, eh, bi waaye booy taasu yi neex nañu def na yow doo déglu taasu ah Abdou booy ay tasu yu ci ay ay ay taasu yu kéwéb la ngay ay taasu Ali ba maa ngi ziar xam booy waaw loolu la woon ah bëggoon naa jël nag Blasta parce que moom tamit waroon nañu xam lu bëri. parce que keroog mu defee laaj bi waxtaan nañ après lu bari bëggoon na ko jël nañu gën a yaatal parce que ñoom tamit si si grand yi la bokk jaar na fi mooy jamono temps temps black mboolu affaire yooyu ah bëggoon naa ko mais malheureusement jéem naa ko mu mu en tout cas xam naa prochainement mais dama koy dagg fii xam naa prochainement parce que instant yii moom foog ñu def ay live yu bëri di gën a fàttali gars yi parce que tamit euh, dañuy def assise nationale hip ko. man je ferai je danaa def man sama parti sama partition naa ko def wa ñu ma gis ne man mën nañ yok dara seen xalaat ci game bi man dina lañ jël live ñu waxtaan nit ñi nam parce que aussi bu len faté né radio bi existé na sun radio radio bi baa fi wa bo len sam bo len duggé sama facebook dinañ gis lien bi bo su tapé dugg incha allah dans la semaine dal dinañ commencer émission yi wa programme bi tam def nañ ko hmm, inshallah mu nek ben radio bu nga xamné radio bu particulière la waaw di bëri na ay mix waaw képp ku nga xam ne mélomane ku bëgg musique rek moom day ko kal foofu tamit on est ouvert pour tout le monde waaw parce que ñu dina ñëw pour liggéey ñëpp ku gis li nga xam ne war na mën a yokk rajo bi waaw contacté ma sama numéro 77 645 25 16 ñu liggéey ci waaw ku am sax sponsor mu nga ñëw ñu liggéey si nga am si ma am si c'est pas business la rek waaw euh, waaye nee na ma xaar ma ma ñëw ñu national waaw <laughs> waaye di boo rek ñëwal waaw yow xam naa yaa ngi instant yaa ngi vacance aux États-Unis mais boo ñëwee rek ñu gën si yaatal parce que rab bi daal lu ñu war a waxtaanee la waaw ñu war a la te ñun dinañ si def ñun suñu wàll dinañ si def suñu wàll lu ñu mën dañu ko si def Cheikh Seye Cheikh Seye maa ngi lay ziar ah Cheikh Tidiane Seye moom nee na il fait savoir où vendre le hip hop sénégalais voilà waaw Cheikh Seye même moom Pape Pendra tam moo ngi Alpha Dani rappeur guinéen fait fait guichet pour son concert de ce samedi 16 juillet au Bataclan à Paris Vous ngeen booy ndaw waaw ñun nañ ñu wax ban moo tax gis nga li mu doon wax rek il faut nous sachions qu'il y a beaucoup de choses à faire Nous a de dafa bari waaw tey bu ñu demee ba def salle fermée Bataclan à Paris ah comme nga Yun ne ñun démb guinéen yi malien yi burkinabé yi ivoirien dañ doon jàng Sénégal. dañ ñu faawoon bu ñu gisee PBS comme ay demi jël leen doon xoolee ay daara ji et cetera et cetera mais tey xoolal tey tey ñun ñoo mujj daw sax xam ñun boo xoole ñun gars yi dañuy dañuy mel ne comme ay xob yu wow xam nañu ne xob boobu fu ngelaw ko offre dem xam nga amoon ay temps fii euh, Nigeria bi demoon nañ ba tam gars yi ku nekk di a def comme flavor Nigeria bi mais xam nañ ne mujjul dox mujj xam nañ ne loolu doxul léegi nag ñu ne non nañ ñëw taasu taasu bi sama waay du bu fenn. moo tax daal il faut il faut il faut ñu xoolaat bu baax dem waxtaan ak ñu war a waxtaan gën a yokk formation parce que musique sama waay musique technique la affaire xam-xam la pour être un bon beatmaker sama waay dafa laaj bu bari nga mel comme sama genre rek taqala nii rek sa nopp neex nga ne yokkal sarli yi nga yokk sarli yi tafta nga ne baax na non loolu baaxul fii la yem mais musique xam-xam la c'est trop technique waaw ménagement dañ koy jang gis nañ wa agriculture par rapport ak formation yi ak ñu melni ay ñom prendre ak yenen gaay formation yi def c'est important parce que dafa laaj aussi ben instant li ngay def ni nga jëm ko nga am nga am xam-xam xam ne da nga am habilité pour pour pour def ko mo moo tax daal sama gaay il y a beaucoup de choses à faire parce que rabbi wax deug fa yalla amna fuk gaay ko bamu kawé mais malheureusement gars yi war nañ ko de ya wàcce war nañ ko lol lol lol lol da koko wax nak mu ne la non def na salle bi def na salle bi bu leen ñu wax affaire ay Sorano ay Grand Théâtre loolu dara benn booy sa quartier bii rek mën na ko feesal mën na jël léegi dem mairie ba mairam lay gis mairam jëndal ko 1500 billets ñu yóbbu ko léegi Sorano feesal Sorano loolu dara loolu loolu léegi du challenge bi dem feesal Sorano wala wala Grand Théâtre du dara affaire bi à l'extérieur la comment on va faire pour ba di fu fi nga xam ne mooy grand grand rendez-vous yi nooy def ba bokk ci grand rendez-vous yi nooy def ba tey euh, tourneur yi mag yi di la woo. nooy def ba su jee si saali mag affaire bi loolu la wala nga dem songi Bercy comme ni Youssou Ndour def songi Bercy xam loolu lu caaxaan ligue c'est un travail waaw euh, euh, un mois avant mom jeexal na biey motax sa sam dafa laaj lu bari il faut dal euh, encore une fois gars yi gën a ma ngi ziar Cheikh Sey néna ma le hip hop sénégalais il faut le vendre dans le circuit world music waaw loolu yëpp mën na mais rek na resté hip hop rek waaw mën nañ ko mélanger n'importe quel flavor parce que c'est une musique très ouverte waaw mën nañ ko jaaxase lépp mais rek na am nañu gis ne noyau bi rek hip hop la parce que yaa choisir ne yow yaa def rap Ken forcé wu la waaw kenn forcé wu la da fay fekk mbalax bi fekk fi nga man rappeur sol sa jëngal sol sa kap fo taxee ku ne laay nga ne man rappeur laa bañ na ko sa animateur mbalax yi daja daja euh, yu di. yu leen di jël lu wax tey ne rapport kii laa invité tey tey rapport kii laa invité ñoo xam ne jeex nañu rapport ngeen waaw léegi boo ñëwee rabal boo ñëwee rapport nga rabal mais li da def comme nu nu nu taasukat sax taasukat ngay dégager léegi loolu gàcce la taasukat ñoom ñoo waroon di roy a ngi fàttaliku groupe dëgg maa booy xamuñu ko groupe boobu PBS ñu leen ñu leen produire woon. pour ñu ñu doon demoon seen biir taasu bi dañuy mel ni kuy rab parce que ñu doon ba ñoom di fekk si rab ba ñoom ay taasu kat nañ mais dañoo ñëw mel ni ku jóge si taasu daaw si dugg si léegi nag affaire ba bu ñu tourné léegi nag rapport bi moo mujj dem ba bàyyi rab bi daw du dem fekki taasu kat <laughs> loolu moo bizarre moo bizarre nga bàyyi li nga xam ne lii or la jamaa di fekk përëm que taasu bi demul fenn taasu bi demul fenn fenn demul gambi bi sax demul. ngeen bëgg nag yéen li ngeen yor mu nekk or nekk jama ngeen ko fiy bàyyi di fekk ay kaasu ba di ko defee comme ñoom ñu koy defee ah même chose parce que yaa boo ko defee rek essence yi boo yaa ngi koy snap boo yaa ngi koy kii genre son gaaro waale nga yàq yaa rey génne fi defoo dara loo xam fa la si booy snap bi la rek ak si tiktok bi la yem léegi ay sound tiktok lu ngay def ay sound snap mooy sound sound gaaro waale boo mënee gaaro waale rek jamono bi mën nga carte gaaro waale son dan ma kare soxore sama tarbi, bi sama tarbi, bi dan ma soxore genre yooyu quoi pourquoi nga bañ ma xol numa yalla sakke xol numa yalla ma lol moy moy bomb essence that's crazy ah, en tout cas nangi, mangi ngi maa ngi allah prochainement jël keneen Eh, Aro Malaysia nena misa message am na solo share Aro Mollah Morgun maa ngi lay ziar bu baax saa baay nee na ma dañuy copier ah loolu dañuy copier rek mais même temps yi xam nga ay pagaay mbay booy ñoo leen sonal ay pagaay mbay ak booy ñoo sonal booy léegi <laughs> booy dañuy tus mu paasum paasum sa gaam sa bopp te maa ngi ziar ñëpp ah incha allah prochainement dinaa jël dinaa jël keneen ñu gën a yaatal ci lii parce que instant yi moom il faut ñu def assise nationale hip hop Galsen à notre manière waaw waaw di ziar ñëpp salaam naa lay naa ok di nuyu ñëpp ah c'est important parce que.